taalibe yi ñu ngi leen ziyaaru biir di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi ci bis bu màgg bis bu rëy muy sëriñ Djily Seye mu baax mi dëkk Asalem Touba te mu amoon benn benn ngoon benn ngeen goo xam si sëriñam bu baax muy Serigne la Mbacke mu baax mi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te yokk ay ay yëfam tey jii nag ñu ñëwul si bis bi ñu fas am ay quelques témoignages ñu toog ak magam ju baax yi muy Serigne Mouhamadou Seye di kilifa si kër gi doon seen mag ñoom ñëpp wuuf leen wuuf gu rafet te ñu bëggoon kaa laaj ay quelques kàddu yoo xam si lan la xam si jiili ak bis bi ni mu déroulé yooyu yëpp incha allah dañ si waxtaan ak moom ak si ak si njaboot geeg yooyu yëpp incha allah sëñ ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di delloo ngi leen di siyaare te di leen dalal jàmm te ñaan suñu borom lii nga xam ne moom la ñuy def ak taalibe bi rek tax suñu borom saxalal na ko ba dara bañ koo gàllankoor. loolu dama ñu koy sàkku ci yéen di ko sàkku ci sëñ bi nga xam ne moo teew te nga xam ne dara taxut nu may ak taalibe ak taalibe rek ñor ko mu topp ko ci Abdul Xaadir ba fekk ko ci ba tax mu jar ko jaral ko jóge ay sol daal ñëw ba fii kon dafay mel ne loolu lépp yàlla suñu borom doole saxal loola ba dara yi gàllankoor ban ci am ci barkeb Sëriñ Tuubaa bismillah ak lanaat Sëriñ Mouhamadou gis nañu yaay kilifa kër gi mhm. ji bokk si njaboot gi mhm. maam sëriñam dafa ko lu rëy rëy loo xam si bépp murit bu bokk si yoon rek bëgg nga sa sëñ defal la ko def def déplacement yi la ngeen wu rëy ñu lay laaj te boo la ñuy wax suñu jiili mooy kan yan kàddu nga mën wax ay yan seede nga mën wax si si jiili bismillah waaw Abdul Xaadir day mën naa cee seede ndaxte mag laa ci moom maay seen taw baay waaye nag du man dong dafay mel ne am na ñeneen ñu fi nekk Abdoulaye Seye ngi fi Abdoul Aziz mi ngi fi alxaaji sey mi ngi fi ñoom ñëpp ci ay magam lañu dafa dañ ma ciy jiital waaye ñoom ñëpp ñoo bokk benn taxawaay bu ñuy dox ñoom ñëpp sëriñ bi rek leen ñor kenn ku ci nekk lépp lépp loo dox maanaam ndigal ngërëmal sëñ bi rek nga ci sàkku Abdul Xaadir mii it maanaam ñi nga xam ne noom la ay magam àndeek man ma tàmbalee ko ci Abdullahi teg ci Abdul Aziz teg ci alxaaji ak sëriñ sey ak moom ak ñi ak ci gannaawam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk doxinu taalibe rek laa gis ñu koy doxee moom laa mën a seere ci ñoom it ndax moom laa gis suma ma gisoon leneen it am naa sañ sañ wax ko suñu borom def naat cër cër bi nga xam ne moom la war a jox kilifa man li may ñàkk ñàkk solo jox nañ ma cër booba te joxuñu ma ko man dong nag kenn ku ci nekk cër ba nga jox ba nga ba nga jox suñu waajur mooy nga xam ne mooy mooy suñu waajur ñun ñëpp cër booba lañ ma jox du moom dong waaye ñun ñëpp noonu noonu la ñuy doxee. suñu borom dimbale nuñ ci ba nga xam ne noonu moom ba ñu gone ba nëgën noonu la ñuy doxee ba nëgën mus ñu sikk dara ba noppit lépp loo xam ne noom moom la ñuy dox lépp loo xam ne moom la ñuy wax maanaam bala ñu ci tàggu seen waajur sax dañu ñëw ci man su ma nee waaw mën naa bañ a dem ca moom su ma nee déet naa bañ a dem ca moom te loola kat wax dëgg yàlla ab cër la ndax nit ki moom bokk ak moom bàyyi taxut mu mu yilife ko génn kenn génn kilifteef gi te teewut cër ba nga xam ne jox nañ ma ko lépp loo xam ne mi ngi ko doon def su ma ko ne buñ nañ fii foofa la ci yem kon dafay mel ne ab seere tàmbale ne tàmbale ne ci loolu waaye bu yemoon foofu képpit man sama gis-gis doy na ma sëkk ndax fii tey fii ne àgg naa ci foo xam ne ci sama digganteeg ñoom yemalu ma ko ci moom dong nag ci Abdoulahi laa koy tàmbalee maanaam na xam ne maa yàlla dogal ma ma nekk seen kanam maanaam bu ma doon def dara te mu wóor ma ne li may def sax noon la buñ ne ma taxawal fi ma taxaw foofa te ñàkk moo fay ñàkk a mën a yemale loola waaye nag cër bañ ma jox moom laa moom laa moom moom laa leen delloo ba nga xam ne su ma tegoon ci weneen yoon it bu ñu nee Mahmoudan taxaw damay taxaw ci loola. waaw bis bi maanaam man sama bis la man ndax comme li nga wax rek sa njiili maanaam man moom euh, altine ak talaata la suñ abo mi xam na si dara <laughs> euh, bis bi nag euh, day bis booba xam ni si xëy na moom baaxam baaxam ak xolam. ak xolam bu rafet ak bëggam lu baax moo ko may bis bii ndax man bërki dem wax naa ko nee naa man mii su ma sëyoon kenn ku bokk si njabootu sëriñ Touba gane si ma ndax yomb man bëgg naa ko aw maguma ko mais bëgg naa ko ndax njabootu Serigne Touba bu jógee nee naa sëñ Ismaïla Mbacke mii bu jógee sëñ Abdou Khader Mbacke moo teew si jotaay bi ndax sa direct la ndax sa direct la kon sëñ Ismaïla am na mbégte boo xamante ne sii maanaam foo ko natt rek weesu na ko yéene jin am si yow loo gis rek yéene ji moo moo ko ëpp. da ngi toog ak kilifa suñu kilifa mën naa ne suñu kilifa suñu lépp muy Serigne Saliou Mbacke mu baax mi ànd ak Serigne Ismaïla ànd ak moom ñëw si bis bi si nganu Serigne Djily Seye gi fas ko jox kàddu bi moo tiit ñu yëkkati si ay kàddu si ndigal sëñ bi mu soññiwaat daal di joxe ay témoignages daal di wax li moo waral tey jii teewaay bi moo waral tey jii ñu gën a sëriñ ji loolu lépp ñu kon bu ko defee dañ jox kàddu gi mu wax si kàddu sëñ bi bisimilah. bisub tey bi nag moom daa nekk bisu spécial ci ñaar bu njëkk bi mooy day mel ni Sëñ Tuubaa moo ñu jotaay bi rek. ndax sëtu Sëñ Tuubaa la te sëtu Sëñ Tuubaa fu mu teew Sëñ Tuubaa moo fu teew bu njëkk ñaaree bi tamit daa nekk jataay boo xam ne jataayu ngir yàlla rek moo ko lal ndax ab sëriñ moom bu fekkee ne daa gane si koo xam ne ba nekkee daara ji ba léegi ñooy ànd kon loolu yàgg na ndax da leer ne suñ jiili mii bari waa na ñu nekkuloon daar ja am ñoo xam sax diggatu leen bañ koy gane si kon nag sëñ bi lii mu def lu am solo la sëñ Ismaël nag moom daanaka du ma wax ci moom ndax dama kaa mën wut mel ne maa ngi moom ñu ngi bëgg yàgg lool waaye ba mu xamee ba léegi liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ko ñor waaw dara ñu liggéey Sëñ Tuubaa mu daa ko koy woo Sëñ Tuubaa ngi koy woo boo ko noppoo Sëñ Tuubaa nag yaakaar naa du la wuyu si wala bu la wuyu tamit wuyu si ñàkk pexe la la wuyu si waaye li ko gënal mooy ku muy wuyu ji Sëñ Tuubaa la lay wuyu jee loolu nag waruñu bett moom ndax kon ne Sëñ Abdou Khadr mooy su waajur ñu naan ko alimenté ëllëg kooku moom bu doxu ci lu baax moom xamuñ ci lu muy dox bu ci des mooy Sëñ Jiili Sey Sëñ Jiili moom def naa nag maa ngi koy maa koy bëgg a miin waaw ndax. bañ koo tuddee bis ba yaakaar na ñàkk daaloon ci laa bokkoon waaw loolu nag ginnaaw bi nag ci laa gën a xam waaye ak baax laa xamee ak yaru ak yaatu ak bëgg lu baax te nag ab jullit moom leen rek nañ ko ma ràññi leen mooy lu baax rawate nag ñu tudd di tudd Sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi dëkk mi ku fi nekk daara bàyyi xel lii moo la tax a jóg muy liggéey ak jaamu yàlla waaye itam jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mooy di liggéey di def ci jaamu yàlla yi ndax yàlla su mboroom lu ñu jox dañu ko dañu ko séddale loo kon nag daa war loo am as tuut ba nga dimbali sa njaboot bu nopp ak mbokk war ngaa xool ñi xam ne ñoo xaw a yàlla xawate na nga leen suñ ji li mii ci loolu nekk kon li suñ Tuubaa waxoon mañ ca ba ji des moo tamit soxna si wax léegi kàddu yi doy na sëkk ndax lii mu seddee ci njaboot gi loolu doy na sëkk waaye nag soññee boobu nag ma lim li mu jàngat mooy dañoo da leen soññaat ngeen ngeen gën a góorgóorlu bu baax te xam lu baax du doy doy fii doy fi ñu jëm kon nag aanim bi ngeen ànd aanim suñu borom jàppale ci barkib Sëriñ Tuubaa ajrul ilaahi wal jasaa ينهو لمن يقرأ أفضل الكتاب كتب باق أنزل القرآن داخلة في هداه بانا كتب باق أنزل القرآن قرآنا داخلة في هداه بانا تلاوة القرآن وجهت إلى خير الذي يتلو هدا والوجلة أمان ما يتلو كتاب دائم ولا يلومه دواما لائم بناو خاري الكتاب يختلي بلا انزفاء حين باق منسل لا سك أن المصطفى قد فاق لا سك أن المصطفى أن المصطفى أن المصطفى مصطفى قد فاق في قلقي وقلق اتفاقا إن ابن عبد الله فاق كل من إن ابن عبد الله فاق كل من إن ابن عبد الله فاق كل من إن ابن عبد الله فاق كل من سن إسماعيل يا تالي بيب سبايبك yàlla nga jël baatin ba ak sañ-sañ ba sëriñ Ismaayila Mbàkke yaay taalibeb sa ba yàlla nga jël baatin ba ak sañ-sañ ba sëriñ Ismaayila Seex Ibra Faal jëfam ja yàlla nga ko jëf sëriñ nga am nga maxraja sëriñ Ismaayila barkeb sëriñ Gawaani yal ko am di géej gu rëy ñuy sëriñ Ismaayila see Abdu Xaadir jëfam ja yal ko mottali ci barke Seexu Bamba yal na la Seex Bamba fegal yaranga te yokku saw fan dolli say taraanga yal na la Seex Bamba fegal yaraanga te yokku saw fan dolli say taraanga salaa alay ilaahu fil aali wa sahbi wa man walaahu min saltamatul fi kulli maasinatin maadaama aqli mahi daynal addiyaat fa kayfa atruka man sura waasitatin asna wasaa'ita turan wal wasilaat wa kullu aamin tuwaafini mawaahibu bal kullu waqtin yuwaasini biminnaat nuurun dari ato barun qari ato أما النسيئة كل البريات وهو الملاس الذي لا ساك الكرام به لما دروا عنهم مسكي سكايات ولم يكن من رئيس عاز مرتبة إلى ومت به وقتا من أخوات أجهاد الفضلاء ماتوا به وواو به من الله فوزا بالإجابات نالوا جميع بي قبل الولادة ما راموا بي من مهمات وعجات عبد المهيمن إلى سوانا ساسي نرانا والتكفنا الإرمان والخسران إلى سوانا سأزي نيرانا ولتكفنا الإرمان والخسران لنا بالأمن من المعاصي يا من كفاني در كل يازي من علينا بدامة الخيور وطيبا لنا ممر وديور قبل جميع المؤمنين ما يزيد خير فلا ربي عندك المزيد يسر لنا يا ربنا الصلاة بسر وعلني والفلا نفيت إبليس ومن والاه li xayrina kunta lana yaalaaw wajal jami sabi ababi waliftaan li xayri kula baabi wali habbil mujtaba muazzami jili borom baxdaat pankum yàlla waajun gudu bi faw nga gëm yàlla barsàq si xab doy sunu imaam waaju fa jiite yowmal xiyaam du jàq sëriñ ismaila samaam barsàq gënu jëm mooy sunu imaam waajum fa jiite yowmal xiyaam du jàq uxal bu gaaw mooma jooyloo barsàq jël na waaju am tiraanga sang ba fawqa kuy borom maqaama xiraw lu leen ma dellu marsiyaal ko bahrul ulum la saayibul ayaati Cheikh Jili fu nuy jëleeti géej gu fees guy duusu dàq lem dàq suukar tey buusu borom baxdaat ak bustaan jàngal na waa këram ba kenn du jàng solli ni mbuut ba kenn du xaaraan ku faatu Cheikh Abdou Khadar moo koy tàgge firi jaal sangu ko sangu ko julee ko jaal ko miraas ko sàkkal ko sarax ñaanal ko bawoon ko sayxu bamba fil jinaani samaam ku faatu ak ku mu mën a doon moo koy tàgge firi jaal sangu ko sangu ko julee ko jaal ko miraas ko sàkkal ko sarax ñaanal ko bawoon ko sayxu bamba fil jinaani Cheikh Abdou du dox di wooteeka këru maqaama ba muy xalala tee laami qaama ay kilifaam di leen wax ne ki nga xam ne mooy jili di ñëw si daayira bii ñu bokk di génération sot imam am nañ cant gu nga xam ne yéen lañ koo jagleel ndax si yéen lay jógee bay ñëw si ñun toujours muy wax Cheikh Ismaïla di tudd génération sot imam kon saa bu nu dikkee yéen it jagleel nañ leen ak cant ci moom wax na leen kontaan nañ trop si jili di leen sant yéen ñi nga xam si ne ci seen diggal la daan ñëwee ndax di dem di tàggooy dem kat yoon la bis ña ngay tàggu ñoom it wala ña ngay fekki fekk si la defe naa loolu day lu rafet kon ñu ngi ciy sant kilifa yi koy bàyyi muy ñëw si ñun ak kilifa gi nga xamante ni moo am xelum ne naa ko seeti defe naa loolu yombut nit di ñëw si yow nga ne dama koy mayoog ngan defe naa ne sama classe gi fu ne dañ fay dem mais du leen ko may kon nag jiili am nga loo nga xam ne euh, lu jara sant yàlla la di ñaan sa digg ak sëñ bi ànd bi yàgg lool suñu borom bi nga xam ne moo xam fa ngeen doore ca jàngukaayub alxuraan ja ak xam-xam fa ngeen ko doon defee yàlla def seen diggante sosoo foofa kon suñu borom mi téye diggante bi ba heure bi na leen ko gën a sàmmal ba ca kanam a kanam a kanam. muy bisub altine bi nga xam ne dana wax ni ci la tëjtali bisu xaside yi altine bi del si nuy màggal Serigne Abdou Khadir kon sëñ bi jërëjëf. Eh, damay njëkkee ak kàddu cant tuuti di ko dale sunu mbokk bi di jéggulu di ko waxal waa daayira bépp muy bis bii nga xam ne tey ci njiital sëñ Jaw samba ak sëñ Ablaye Sey Murid Saari ak soxna Ami Diop yaakaar naa gaaw ba la weesu daam am kun ko joxoon ci mbooloo mi yàlla dogal nu yéene leen aw yiw ak barke ndax ji li bu ko neexoon lii mu def kon mu def ko ci kër ga rek waaye xéewal gii nga xam ne ñoom cëg gi bési leen fu nu wàcc suñu borom wàcc fa aw yiw moo waraloon ki ko am ki ko aye woon defe naa soxna ami soxna nday sekk ñu waral bisub tey bii bisub mbégte bii bisub xéewal gii nu yéene leen ko tax ñu nen ko jox sëñ jiili sëy te ki ko jar rek moo ko jar sëñ Ismaïla jërëjëf. bis yàgg naa waaye bis bu mel nii jafe na sëriñ Abdul Xaadir sëy di jàmbaari sëriñ Masamba sëriñ Abdul Xaadir sëy lom social Serigne Abdou Khadir Seye taalibe bi li nga am jomb la ki ñëw ci yow tey mooy Serigne Ismaïla Mbakke moom Serigne Moodu moom Serigne Abdou Khadir ma ragaloon yàlla kon loolu defe naa ay caaxaan may yu waaye dama bëgg ñu may maag digloo ma yaatal ci jëmm ju tedd ji ndax ganug waxkat ku ko am boo ko digluwul tëraloo ko te nit ñi mën nañ fa ñëw rek waaye du ñu xam ki fi ñëw ki fi ñëw mën nga ni sëriñ Ismaïla Mbàkke la tudd waaye mën naa bañ a tax nit ñi xam ko ma koddu Jóob dafa jënd fasam tudd ko juddu ñu ne ko bile maajoor safas fas yi lu mu wundu mu ne juddu la tudd ku ko fooy def fekk danga ko amul waaye jëmm ji judd na judd bu rëy waaye dafa defar jikko ji ba ku ko gis muy dem nga bëgg a jaxasoog moom waaye ku jaxasoog moom gën koo naw li ma toogoog jiili sëy mu di ma leeral ak di ma laabiire ci mbiri sëriñ Ismaayla jotaay yooyu mënu ma koo lim ndax bëri na waaye jëmm ji tey laa ko mas gis waaye juddu bi ma ko waxee ngeen xam ni mooy réew mi ndax sëriñ Moodu sëriñ Abdou sëriñ Bamba xaadim borom jumaa ji suñ jumaa borom jàkkee géej gi fa la juddu yam sëñ Abdou doy na woy waaye mu bokk réew mépp ndax sëñ Kokki Matar Ndumbe mi nga xam ne moo jàngal waa réew mi mooy maami ji mujj tedd ji te sëriñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi baatere record bi duma nasaraan bi dafa dem kokki ca barab maamam ba dandal ñax ma julli ca kanam barab ba daan ni lu tax am njàmbur sàggan ñu ne ko lu tax mu ne kii tëdd fii muy Maxtaar Ndumbe kum maaseel jamono mooy su xut bu samaan kookoy maama Maxtaar Ndumbe waaye Maxtaar Ndumbe dafa denc faa xujja sekk am ci Moodu faa xujja Ngura faa xujja Balla faa xujja Moodu faa xujja ak Mama Samba faa xujja Moodu faa xujja taaw bi dem ndaam jël fa Issa Jéyloo mu Balla mbërgu mu mbërgu Seneba mu dem Maxtaar moom maxtaaru ndaam am ci sëriñ kokki njag isa jéey maam yi sëriñ ismaila mbàkke sëtu imam suñ kokki njag isa maamam moo njëkk wax ci réew mi ñu nekk senegal julli leen wala ma leen ndax dafa toj ngërëñ lakk njekki naan taal ngewul lakk ngewul biraama sele taal yelli lakk fendal ne waa Kàndal la julli leen wala ma leen waa ni ko ñun jërul woon ngay ñëw jërul ngay yónnee dañu julli waaye suñ kokki njag isa jéey moomu dafa dem kër amadu la jël fa soxna Aminata yee la am ci Moodu Aminata yee la Matar xëri Samba Aminata yee la Penda Buya Marema xëri maam ak ndaak dem ñaxal si am fa Matar Marema Joor Matar Marema jur Mor Marema jaxate Silla Omar Fall Booli Sadikh Silla ak Serigne Madiba Silla samaam Serigne Madiba Silla moo am soxna naata mu am jëmu ju tedd ji comme Serigne Touba fi teew waaye mbokkum réew mi fi teew soxna Aminata yee la maamam. dani woon man ku may denc day day sant Jóob ñu ne ko loolu xëy na jafewul mu ne waaye day mokkal alxuraan ba bu ko doon tari du ci gag ñu ne ko loolu kese la mu ne déedéet waaye day am fit ba bu demel doon riir di ñëw du daw suñ tokki njagi sa maamam bi mu déggee loolu dafa wax ma numbee baayam ne ko dama bëgg nga jox ma sa fas yi ak sa fital gi ma dem ci soxna Aminata Yàlla ndax kàddu yee muy wax man rek la koy waxal man maa noonu ci réew mi maamam waree kokki guy fanaan wala laan ngir bëgg xëri mu neex ca kër amut yee la ba mu demee fekk soxna Aminata yéen yóbbu ab seet tilmaxa ngol ñu jox géwél ba aw fas mu ràmbal dem ñu ne defaru leen am na fas wuy ñëw mu ñëw ne ana nekk seet ba ñu woon ko ko mu dem soxna Aminata yee la ne ko am na ku lay seet ma nga tekki penc ma yëpp ba mu fees kee xam naa mooy ka nga doon wax naan bu demel doon ri ñëw du daw mokkal alxuraan sant Jóob soxna Aminata yee la ni ceet gi tas na daan ni bu ngeen eggee na ngeen rey juróom-ñaari nag mag ñi dañoo riisoon mu jóge fa dem ñu waxtaan ñu juboo mu ñu may ko ko maam ci Modou Aminata Yella Matar Xëri Samba Aminata Yella Penda Buya Marema Xëri maam ak ndaak Modou Aminata Yella maam moo dàq dameel fat dameel jël lingeer jur lingeer ba tey jii may wax téere alxuraan tasaarewul kër maamam Aminata Yella yaayam isa jeey rakka may sa teen joor lañ ko jox maam ci biigi ngoone buur bu jigéen ba ca njataar ñu jox ko Yumbur Jaxate maam ci rakki damel Samba Lew bi lañ ko delloo maam ci Kumba Mayaar Fall le 6 octobre lañ ko rey ci gaar bi ci Tiwaawoon wuri wa xat yi ñu jox ko gànkale mu dum xuruja maamam rekk damel ak teñ moo doon ku daw ñaaw kon Sëñ Tuubaa fi ñëw dëkk kooki waaye mu dëkk ndaamit ndax wéq noo la ci mbaam waaye kéwél tëba yëfam gaynde bi bàyyam gaañoo ñu ne ko looy doon dañuy miiraasu gun waaye xam naa ni fàdd ci la sëriñ Ismaïla mbakki sëtu imam mu gën mi ñoo ngi lay seereel ni kontaan nañ bég nañ ñoo ngi lay seereel ni tey amuñu mbégte mu gën a kaw mii ne sëriñ Abdou Khadir li tax mu gën a sant ne sa mag yi ni la taxawoo ne am na ko ko fi junj léegi. nee bu ñëwoon mel ni daa am xàjjale gu ci am nee bu nu ko waxutit des na ko xam waaye àndandoo bi nii nee ñoom ñi ñu fàtte seen bopp sëriñ bi nee na loolu ab soññee la ci moom nee ab soññee la ci sëriñ ji li muy toog nee waaye xam na ni jikkoom rek ko may nee ndax kóllëre gi ca daara jala woon nee bu ñu tuddee bër sëriñ bi nee li ñuy tuddee bër nee suñ ko masaa def nee na moom ak suñ alaaji sëy ak suñ alaaji sëy ñoo daa ànd nee na ba mu wàccee ab saaga mu ñëw ci fii nee buñ jullee ba ca suba ga nee ñu ñëw set si ko ci këram nee kóllëre googu nag mi ngi bëgg am 15 ans bu ko ëpput te dara soppiku ci ne dara sensé wu ci nee na kon nag ñoom ñii ñooy ay gor ne ab sëriñ jafe naa jaxasool ndax ne léeg-léegi temps bi mën na laa xoj ba nga fàtte li nga war a fàtt ba dootoo mën a demati fa nga daan dem ne boo dul borom xel mu gudd ne mën naa wax ni soppeeku daa am waaye ne dogal na ko ngànt loolu ne waxtu ne jiili mi ngi dagg yitteem di ñëw ci moom ne te bu ñëwee rek ñëwaa leen na waa kër Baay Galaay Sey gépp ndax xam na ni amu leen jot ak liggéey bi sëriñ bi nee mi ngi sant mbokki daayiraam bii mu àndal ñëw fi nee ci njiital sëriñ Dambay ak sëriñ Assane ak sëriñ Ibrahima miy toog nee di mbokkum taalibeem ak sëriñ Mbay Seen ak sëriñ Abdou ak mboolem waa daayira bi ñi ma àndal ñëpp nee ak soxna Mariam Gueye mi jiite génération bi nee di leen soññaat bu baax ñu waajal bis bi nee bi ko sëriñ Abdou Khadir woowee ne ko daa amoon yéene mu seet si ko. nee ci la ni ko. comme da bokk ci daayira bi. comme da bokk ci daayira bi. te dañoo ubbiwaat daayira bi balaa màggal si Abdou Khadir. nee nañ fa ñëw ubbiwaale ko fa. nee loolu nag taw féex la. nee kon nag ñu waajal ko. nee bu seen gan yii ñëwee. nee na waa daayiratu gàmm gi. ne sëriñ daam sëriñ bi ne jox na la ndigal nga dalal leen tatagal leen ànd ak ñoom ci liggéey bi ne ndax ne loolu mooy liggéey sëriñ Touba ne ni ko taalibe bi sëriñ Cheikh Gueye maam jaara taalibe bi soxna jaara bee waxee ne kaddu yëpp rafet na sëriñ bi ne saa sëriñ ji li muy dagg yitee mi ñëw ci moom ne bu kenn jàpp ni nee day wut si lu mu am ci moom wala daa amuk jot rek di fa ñëw nee moom moo koy soxla moom sëriñ Ismaïla wala moo xam ni kóllëre la ci nee bu coono dee amit nee na moom mooy sonn ci seen jëmm yii nee loolu li tax mu koy leeral ab ànd nee bu amee te la ëpp ca mbooloo ma xamul na muy doxee nee gi si nii mën naa bëri. nee du leen lu dul daara ja. ak xaritoob xol. nee sëriñ bi nee loolu rek la. nee sëriñ Fallou daan wax ni. bëgg buur. buur bëgg laa ko gën. nee moom dañ koo tànnal sunu bopp. sëriñ Ismaïla nee na jiili daa bokk ci ñi mu tànn ci biir xolam. nee kon nag nu waaje waajalaat bis bi nee daam kàddu gun fàtte muy sunu yaay yaa nday Jóob nee sunu xarita nee na soo xamee jëmm ji rek xëy na moom la ñu doon Pastef bi nee aw jëfinam mag lépp nee ñi sant sëy la yàlla baaxal rek la yaakaar nee na koo ci gis rek macha allah nee bokk na ci sëñ Abdou Khadir ci kër sëñ Abdou Khadir nee na waaye ab Baay Faal la ci kër sëñ Madiba Sylla nee na ki jur waajuru mu jigéen sëy la sant nee muy soxna Mati Sëy ndeysaan ay bokki kese nee loolu mënoon ngeen koo bañ a xam sëriñ bi nee ñi ngi ñaanal taalibi yëpp. jiili borom baxdaat pankum yàlla waajun gudd bi faw nga gëm yàlla